say dembaak aram loo kumba caam bañ pendaak maalik ban ma penda ale boy michel sambay naar faawa dewele nga gaaya fatimata lam saaray maamam roqayatu lan saaray maamam maraminte lan saar mooy maamam kooko jur mbote fay mbote jur faawa dewele faawa du jur seydal haaji maalik mi bàyyi sëriñ baabakar si borom bone kaare bi duko sengal duko wengal duko jengal famu ko tegoon daaw fala koy teg ren moy mooy bàyyi Moustapha Sy Jamil borom fas, moy bàyyi Muhammadul Mansur borom daara ji borom daraja gay, borom dërëm beey borom darapo bi borom sama mam neena borom ganyang naññi moy bàyyu Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum gor gi ci roqo beey sama mam ji lay jiin Serigne Babakar Simali. sëriñ Babacar Si Maalik amul moroom xalifa soo ko woowee muuyu kii mooy maam kii mooy maameey mooy maam moo aay ci lépp li nga xam ni yaa ngi koy mbébét ci sa xol boo ko disee maam mu faj ko waaye maam maa ngi lay ñaan ci sa barke sëriñ boobu di Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ma maam maa ngi lay nga jaar ak ñun fa nga daan jaar si malik Bakare dara man si di faagay demba xaar yalla mi dess bo fi cior neena la roqay njaay ali boy michel sambay yaayam mom Serigne babakar si malik, ki moy mami Mustafasi, si moy Mustafasi, mustafa si Mustafa, mami mustafa magi Mansor bal xawmi mi ga ca ñaari kala ya. moy magi Mam Abdul Aziz si dabakh borom béjaaw bu rafet ba borom 40 ans zéro faute magam mooy Serigne Babacar mooy maami Habib Sy Habib Sy caat Habib Sy mooy caati Maodo yi bu leen ko fàtte. yaa ilaa waaw waaw hi wàjji si yow déggal aada yow déggal lii xanaa mu aada جليا يا إله ووعيه والجزيا أبدا يدخلني أنا محمد أجمدنا مختار في من كل وصف حميد من كل وسب حميد عاز أبقانا دين رجاؤنا يا إمام مسلم الحاج مالنا من كل وصف حميد حاز